tàmbalewul fenn yemul fenn keneen ku dul yàlla nag am nga foo tàmbalee am nga foo yem kon muy ñaari cant yi bi ci des mooy hamdu haadisin li qadimin cant goo xam ne jaam moo ko sant mawlana tabaraka wa taala ci xéewal gu mu ko defal wala mu feebar ba mu wéral ko mu ne alhamdu lillahi rabbil alamin ak cant goo xam ne sa moroomu jaama la ko sant ci loo xam ne lii defal nga ko ko mu ñaanal la yàlla ne jazaaka allahu anni xayran li tax nga di ko sant su ko yàlla sakkul woon du am ndax yow mën a loo ko sa bopp yow mi santit su la yàlla sakkul woon doo mën a sant ndax doo am ki ngay santit su ko yàlla sakkul woon du la mën a defal li mu la defal ba sa xol sedd ngay wax yàlla naan ko fayal ma ko kon yooyu yépp ci yàlla la dellu yàlla borom boobu la biir ijaadi ka nga xam ne kii mooy borom amal lépp jële ci ñàkk indi ci am nar leen a jële ci am delloo ci ñàkk jële leen ëllëg ci ñàkk delloo si leen ci am ngoo xam ne gi dootu ñàkk mukk ko kenn mënu ko kudul mawlaana tabaraka wa taala buur boobule mooy buur ba nga xam ne moo ñu tëbb ci sababu amuk weer wi muy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo jiitu lépp ndax maam aadama abul bashar alayhi salaatu wassalaam wax na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko marhaban bi mi suurati wa abi maanaaya ëskay yow sama doom ji nga xam ne ñu ngi la bind ci sama jëmm ak sama melo te it nga nekk di sama bàyyi boo xam ne bii yaay sama bàyyi maanaa ndax su dul woon yow duma am summa salaatu wa taslimun yafuuqu ala miskin wa randin ala di lfadli walqadami ak teraanga akuk xéewal akuk dolliku akuk mucc salaatu ak salaam boo xam ne danañu kawe ñoom ñaar ñooñu le benn xeetu odeur boo xam ne moom la ñuy wax rand ak misk yal na nekk ci borom ngëneel la niki sallallahu alayhi wa sallam ak tedd nga ak daraja wa alihi almuhtadin alxirati alkurama almutami sirati almuxtaari walqadami yal na nekkit ca ñañ yonent bi ñi nga xam ne ñooy ñi juboon tey jubale te di tànneef di way tedd fab seen tànk teg ko ci tànki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di doxe na mu daan doxe di wax la mu daan wax di jëfe na mu daan jëfe ngir jëmmi tabaraka wa taala ak di roy ay jeexitam salaatu ak salaam su dirikoo ci sallallahu alayhi wa sallam ba noppi yal na dottiku ci kaw gaañooñu le ak képp koo xam ne kii yaa ngi rey seen melo ya te di nekk ci li nga xam ne li moom sallallahu taala alayhi wa sallam doon def maa araada arraadu walwarqaau tanxibu min hadi liha wa jara damcun min alqalami Seydi El Hadj Malick moo ne sama salaatu boobule ak salaam bi ma ñaan yàlla pour mu dotti ko ci kaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ko aj di ko ñaan yàlla fekk petax ngi yëmm ci kaaf wala petax bi yëmm ci kaw banqaasu garab di jooy ak feeg daa mi ngi bàyyi koo coos kaa ngi bàyyi koo ci xalima di bàyyi koo ci daa dem ci xalima di daw ci kayit wala alluwa feeg looloo ngi am salaatu ak salaam yal na bu mu dañ di bàyyi ko ci yàlla di dottiku ci sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñom ñooy la wa innahu id araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuuran nabil alami gaa ñi daal ci dëgg-dëgg luy mbir te di mbir ba nga xamee ne mawlaana tabaraka wa taala namm na suñu amal namm na suñu sos namm na suñu bind la fab ci leeru boppam def ko mu di soppeem ba kii sallallahu alayhi wa sallam ne ko nekkal di sama soppe di sama xarit di ku ñu jagleel sama tedd nga ak sama lépp te yow mooy yow yaa di muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna alawalima aaliha wa saafilaha ashiatun talaat min afdali nasami ñi dëkke kaw ñëpp ak ñi dëkke suuf ñëpp ñi ci biir géej géej ñi ci jéeri jéeg malaaka yeeg arash ak kursi yoog malaaka yee ca nekk ak ajjannaak safaraak kawsaraat lépp asamaan suuf lu mu ci mën a doon yooyu yëpp yàlla nga ko bind ngir sallallahu alayhi wa sallam ngir terale ko kon nag daanaka soo dee seet ni agu ashiatun talaat min afdali nasami ay ceeñeer lañ yoo xam ne ñi ngi bàyyikoo ci sallallahu alayhi wa sallam ceeñeer moom la tubaab di wax réverbération waxtu woo xamee ne jant bi fenk ne ba yëkkati ko ba dox lu mat gopp ñépp néeg boo xam ne bii af na daa gis ceeñeeri jant ba jàpp ca biir nga janloog moom mu ne kon nag mbindeef yépp noonu la ñu mel ci ci sallallahu alayhi wa sallam daanaka kon yonent bi mooy jant bi ñu keneen ku dul yonent bi ñooy ceeñeer yi moo tax ku ñuy wax jaabir ibnu abdillahi laaj na sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan lëf yow yonent bi la yàlla jëkk a bind sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa leeru bi yonent yaa jaabir moom la jëkk a bind door a bind wépp yow yiw bind gannaaw ba bépp ay ba nga xamee ne bind na leeru muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawal na ko ci tiitaru jege yàlla fukki at ak ñaar def ko ñeenti xaaj xaaj bale mu bind ca arash bale mu bind ca kursi bale mu bind ca ñi nga xam ne ñoo yenu arash ak ña nga xam ne ñooy bëkk néegi kursi yi mu bind leen ci benn xaaj fab xaaj ba ca des taxawal ko ci ci cofeer ci ci tiitaru sopp suñu borom tabaraka wa taala fukki junni at ak ñaar def ko ñeenti xaaj bale xaaj mu bind ca xalima bale bind ca xalima ak alluwa ga allu lawxul mahfuz mu bind ko ci xaaj bind ajjanna ak safara ci xaaj xaaju ñeenteel ba mu taxawal ko ci tiitaru ragal yàlla fukki at ak ñaar def ko ñeenti xaaj bind ca xaaj benn ba malaaka ya bind jant ba ci xaaj bind weer yi weer wi ak biddiw yi ci xaaj fab xaaju ñeenteel ba taxawal ko ci tiitaru yaakaar suñu borom tabaraka wa taala mu am fa fukki junni at ak ñaar mu def ko ñeenti xaaj xaaj bale mu bind ci am xel bind xam-xam ak lewet cim xel bind mucc ak tawfiq ci xaaj xaaju ñeenteel ba mu taxawal ko ci tiitaru rus ak kersa fukki junni at ak ñaar ne ko jàkk xool leer ga seet dal di seet ngir ñaq ba tooy xet dal di gute téeméeri junni ciy gut ak ñaar fukki junni ak ñeent ciy toqent sama borom tabaraka wa taala bind ci benn toqent bu nekk mu bind ca ruuxuy nabiyu wala rasul an nabiyu mooy koo xam ne kii solof na la waaye kenn yónniwu la nabiyu mooy koo xam ne kii solof na la waaye kenn yónniwu la rasul mooy koo xam ne kii yàlla dafa déeyaaleen moom ba noppi yabal ko ci xeetam ne ko soo demee taxawal ma fa wax leen nangam ak nangam li ma bañ ak li ma bëgg képp koo xam ne kii nag kenn yónniwu la nabi yu nga koo xam ne kii yónni nañ la nabi yu nga rasul nga ba nga xam ne loolu la def na sama borom tabaraka wa taala digal digal ko ne ko na nga noyyi ba mu noyyee sama borom tabaraka wa taala bind ca arwaaxul ambiyaai ba nga xamee ne bind na ko ca ba ba ci seen noo yooyu la mu bind ca itam ca ca ca noo yooyu la la ruuxu awliyaa yi ak suadaa yi ak shuhadaa yi ñi ki ñu texe ñi ak ñu see ñu sayid ñi ak ñi nga xam ne dara du seen itte ci jullit yi lu dul topp mawlaana tabaraka wa taala ba def penc ba moo tax sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne fal arshu wal kursiyu min nuuri arash ak kursiyu yàllaa ngi leen bind ci sama leer wal kurubiyuuna min nuuri malaakay kurubiyuuna yàllaa ngi leen bind ci sama leer wal ruuxaaniyuuna min nuuri malaakay ruuxaaniyuuna yàllaa ngi leen bind ci sama leer man asam malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka asamaan yi juróom-ñaar yàllaa ngi leen bind ci sama leer ak janna ak la ca nekk ci xéewal yàlla nga ko bind ci sama leer jant bi weer wi biddiw yi yàlla ngi leen bind ci sama leer xel xam-xam bindal kattan ci topp yàlla yàlla nga ko bind ci sama leer ruuxal ambiyaaw yi ak rusul yi yàlla ngi leen bind ci sama leer suhadaaw yi way shahid ñi wa saalixoona ak ñu baax ñi yàlla ngi leen bind min nataiji nuuri ci sama ngerti leer
يا أكرمك علي يا كنز الورى جدلي بجودك أبلي برضا صلى الله عليه وسلم متى يكون ناجحان ومتى أن تسمع الكتاب من معنى والله إلى العمل بها والعسر أقلام جعلنا إذا لم يقدر الثقلان يجمع نجرة أبدا فما استولى إدراكي بك لي قليب مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواقي وإذا سكت ففيك سمتي ينبي وإذا نطت فمدح واليقين وإذا سمعت فعنك قولا ينبي وإذا نظرت فما أرى إلا وإذا نظرت فما أرى إلا ك وإذا نظرت فما أرى إلا
وشك البعير إليك حين رآك ودعوت أشجارا أفدك مقيادة وزاد إليك مجيبة لنداك والماء هاب براحتيك وصبحت جمل صاد الفضل في يمناك وعليك ذللت الغمامة في الوراء ينتهي المومة وجفحن إلى كريم لقاك هذا ولا أثر لمشيك في الثراء والصحر قد غاثت به قدماك وشفيت السلعات من أمراضي وملأت كل الأرض من جدواك وردت عين قتادة بعد العمى وابن الحسين شفيته بشفاك وكذا حبيب وابن أبرا بعدما جرحا شفيتهما بلمس يداك ينن والي فركج من رمج به داويته في خيبر فاشفي بطيب لماك وسألت ربك في ابن جابر بعدما أما فأحيا وقد أرضاك ومست الشاة لأم معبد بعدما نشفت فضرتني شفاء رقياك ودعوتها ملقى ضجيرا معلنا فانهل قطر صحبي حين دعاك وانا ودعوت كل الخلق فانقادوا الى دعواك طوى سامعين نداك سنينا وقفت دين الكفر يا علم الغلام وظلم ورفعت دينك فاستقام هناك اعداك عدو في قلب بجيلهم سرى وقد حرم رضا بجفاك في يوم بدر قد أتتك ملائك يوخم من عند ربك قاتل أعداك والفتح جاءك يوم فتحك مكة والنص في العذاب قد وافاك هود ويونس من باك تجمع وجمال يوسف من ضياء سناك وجمال يوسف من ضياء سناك وجمال يوسف اللهم صل وسلم عليه وجمال يوسف من ضياء سناك وجمال يوسف من ضياء سناك وجمال يوسف من ضياء سناك وجمال يوسف من ضياء سناك جميع الانبياء ينتهي الممدود سرا فسبحان الذي اسراك والله يا ياسين مثلك لم يكن مك في العالمين وحق من نباك معا بسطك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا من صفات علاك إنجيل عيسى أتى بك مخبرا ولنا الكتاب أتى بمدح علاك متى يقول المادحون وما أدى أن تجمع الكتاب من معناك والله لو أن البحار مداد ونشب أقلام الجعين لذاك لم يقبل الثقلان يجمع نزرة أبدا وما استطاعوا له إدراك بك لي قلب مغرم يا سيدي وحصاسة محشوة بهواك وإذا سكت فبيك صمتي كل ينسي الممد وإذا نطقت فمادح علياك وإذا سمعت فعنك قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى إلاك وإذا نظرت فما أرى طيب.
إلاك كلمة مدعو شفيع المسلمين رجاء البرايا يوم مستحمين جو المكيالين جنس
وأعلم الله هادينا نبوته وكان آدم بين النفس والنسم وأعلم حملنا الله يلا هادينا أجي جبل سنو كما صلى الله عليه وسلم لن لك حمل نبوته أم نبوام وكان تنك تجمن بمك غي حمل من مولانا تبارك وتعالى آدم مام آدم bayna nafsi ci diggante dindi jëmmi wan nasami ak dabar rox sallallahu alayhi wa sallam kudul moom da nga laata xam ni ab yonent nga toog nga ba am ñeent fukki at sama borom xamal ne la ne xamal la ne danaa la yónni sallallahu taala alayhi wa sallam ba mu nekkee ca leer ga la ko sama borom xamal ne ko sama bi yonent nga sama xarit nga sama soppe nga jagle naa la sama tedd nga yëpp عيون الأرواح من نور الهدى انبجست فإنه الجنس الأعلى معدن السطم ويسا للروي انبجست فجنني من نور الهدى ci tukki tukkee ci leeru sallallahu alayhi wa sallam fa innahu naka moom yonent ba al jinsu mooy xeet wa al aala ba di aji kawe maadinu sutumi mooy mbelli cosaan yi itam wa xalqu laxlaaqi baasu al ambiya li zuhurihi muqaddimatun faalam wala tanami fi aalami almulki wa xalqu laxlaaqi sayid alxaj maali ne bindi bindeef yi wa baasu al ambiyaai ak yónni yonent yi jëkk ko ne muqaddimatun ak yër la li zuhurihi ngir na mu feeñam moom sallallahu alayhi wa sallam fi aalamil mulki ci adduna faalam xamal lool le wala tanami sayid haj mari ne wal arwaaxu kon nag ruu yëpp taabiatun way topp lañu li ruuxihi ñeer ruuxu sallallahu alayhi wa sallam mu xam le ne su dul woon ruuxu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam arwaax yi ci des yàlla du leen bind wal ajsaamu yaram yëppit taabiatun way topp lañu li jismihi ñeel yaramu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu xame ca ne su dul woon jëmmam ja yàlla du bind jënn jëmm seydi xaj ma yi ne kon nag gaañ waay dëgg-dëgg haada lii ma leen limal ngeen dégg ko ne su dul woon moom du am gaayatul karim mooy doye tedd nga kenn mënatul am tedd nga bu ko féete kaw mbër mooy yefal ba mu suur mu toog ba bew di cëpp cëpp ci sa kaw doo ko war a faale ndax nebban bi ko tax a jóg ci sa kaw jur la jóge doo xoloog moom da nga koy bàyyi rek وكان محتجبا من قبل في حجب يسبح الله فيها غير متصم صلى الله تعالى عليه وسلم درا daraam masul toog te nekkul di jaamu yàlla ne wakaana nekkoon na leerug sallallahu alayhi wa sallam muxtajiban di aji yiiru di aji dencu min qablu ca jëkk fii xujubin ci kiiraay yi di fukk ak ñaar fii xujubin ci mangasin yi di fukk ak ñaar yusabbixu mbir muy sabbaal moom leer ga fiihaa ca biir kiiraay yooyale ke xayra muttasimi nekkul woon di bañ a doxal mbir ma wala mu dugg ca ba mu yàgg mu bay wala tax léegi mu tontu ne kullu xijaabin aqaama kullu xijaabin bépp kiiraay aqaama albadru min xuqubin fiihi sallallahu taala alayhi wa sallam sax na ca ay jamono lu taxoon li taati mawlaana ngir topp mawla suñu borom tabaraka wa taala wa kulluha haaza tasbihan yaxussu bihi aati bi tartibiha fi xusni muntadimi wala fi xusni muntadami wa kulluha képp ci kiiraay yooyu la haaza laq na tasbihan ak sabbaal goo xam ne yaxussu dana jagoo moom kiiraay ga bihi ca sabbaal googale Seydil Xaaj Maay ne déglu leen aati dana dikke bi tartibiha ci toftale kiiraay ak kiiraay lu nekk la mu fa doon sabbaale fi xusni muntazami ci noose boo xam ne bii dara du ca jàngat soo solee rek mu jël ñu ne ko waxal mu ne fa qudratun kiiraayal kattan minnatun kiiraayal xéewal min qabliha nekk na ci jëkkam izamun izamun a jëkk wa rahmatun kiiraayal yërmande wa saadatun ak kiiraayal texe wa karamatun kiiraayal tedd nga manzilatun kiiraayal daraja hidaayatun kiiraayal jub nubuwatun kiiraayal nubuwa fala tahini wa rifatun ak kiiraayu yëkkatiku taatul mawla kiiraayu topp yàlla shafaatu kiiraayu ramm fiiha ci kiiraayu ramm ak tamaamu mat ga fiiha aji nekk la ci moom li la tartibi waxtaki nii na nga attewu ci att bi loo leneen loo mën a déglu dégg bu ko déglu lii ma la andil mooy li nga xam ne li sell na sooy ba nga jàpp ko ci di ko jëfe te xam ne kenn du ko mën a dingat wa qaaticun abxuran yaa am biha sabaqan jamica min nadratin walxubbi walruxumi wa qaaticun aji dog la moom leer ga abxuran ay géej yaa am yu di fukk biha ci sababu géej yooyale sabaqa ak dog ga mu ko dog sabaqa la jiitoo moom sallallahu alayhi wa sallam aljamia mbooleem lu yàlla bind moo xam malaaka nga wala doomu aadama nga wala jinne nga min nadratin ci laala moom géejug seet la ndax daf ko xuusoon wal xubbi moo gën a sopp ñëpp yàlla moo gën a sopp ñëpp jaami yàlla yi wa ruxumi moo ëpp ñëpp di yërmande ndax ca géej ya mu ca xuusoon géejug seet la woon moo tax mu daan wax ne su julli jotee ba ñu taxaw di li di waaj a liqaam muy defar sappe yi ne leen jubale leen seen sappe ba mu ne rogg na óom yi yemoo na baaraamu dëy yi yemoo na mbagg yi yemoo xam leen ne ni may gise ci sama kanam noonu lay gise ci sama gannaaw wa qudratin summa ikramin wa maarifatin shafaatin wa hudan joodin wa min xikami ci géeju kattan ak tedd nga ak géeju xam-xam ak géeju ramm ak géeju jub ak géeju tab ak xam-xamu xikma yooyu géej yëpp leerug sallallahu taala alayhi wa sallam xuus na ko moo tax kenn du ko ci jot du ci moroomum kenn kenn nañu yàlla boole ci soppeem nee na lamma marat marat hadihi al awaam ba nga xamee ne ay at yi wéy na ci kiiraay yooyu la nga xam ne leer gu ñu ñoŋal ga jaar na ca ba génn ko def fa la ko fa saw borom santoon ci jaamu ca kemtalaayal na nga xam ni moom la ko yàlla dogale woon ci moom te bëgg ko ni digal na ko ci mu xuus ay géej yoo xam ne fukki géej la géejug seet géejug yërmande géejug cofeel géejug tedd nga géejug tab géejug jub géejug ramm géejug xikma ak géejug xam yàlla mais mu daal di dégg ndigal la soobu ca biir géej ya géej gu nekk mu di ca tagg sama borom tabaraka wa taala ak di ko ca defal jaamu ga nga xam ne moom la yellool mu amee ca géej yooyale loo xam ne xel mënu ko xalam ba jàpp ko aw lamiñ mënu ko melal wala mu wax ko kenn ba mu mën ko dégg kenn nit amul bët boo ko mën a gise xoole ba léem ko ci ñi nga xam ne àgg nañ ci yàlla kenn nañ yàlla boole ci soppeem nee na lamma marat marat hadihi al awaam ba nga xamee ne ay at yi wéy na ci kiiraay yooyu la nga xam ne leer gu ñu ñoŋal ga jaar na ca ba génn ko def fa la ko fa saw borom santoon ci jaamu ca kemtalaayal na nga xam ni moom la ko yàlla dogale woon ci moom te bëgg ko ni digal na ko ci mu xuus ay géej yoo xam ne fukki géej la géejug seet géejug yërmande géejug cofeel géejug tedd nga géejug tab géejug jub géejug ramm géejug xikma ak géejug xam yàlla mais mu daal di dégg ndigal la soobu ca biir géej ya géej gu nekk mu di ca tagg sama borom tabaraka wa taala ak di ko ca defal jaamu ga nga xam ne moom la yellool mu amee ca géej yooyale loo xam ne xel mënu ko xalam ba jàpp ko aw lamiñ mënu ko melal wala mu wax ko kenn ba mu mën ko dégg kenn nit amul bët boo ko mën a gisee xoole ba léem ko ci ñi nga xam ne àgg nañ ci yàlla nee na nag ba nga xamee ne génn na ci géeju xam yàlla ga sama borom tabaraka wa taala daf ko yekkewal digal ko mu mu ball di wéy di daw ba nga xamee ne daw na am ñeenti ñaar fukki junni toqent ak ñeent toqe ca sama borom tabaraka wa taala bindi ca toqent mu nekk ab yonent dal di ko digal ne ko itam na nga wët wëndeelul daal muy wax naan subhaana alaalimi alladi laa yajhal tudd naa sellu buur bi nga xam ne bu xam la te réerewul dara subhaana aljawaadi alladi laa yafxal maa ngi tudd sellu buur bu tabe bi nga xam ne du nay mukk summa xalaqa allahu min nuuri nabiyina jawharatan ثم أمر الله تلك الجوهرة أن تنشق نصفين فنظر إلى الأول بعين الهيبة فصار ماء جاريا وهو ماء البحار فإنه لا ينام من هيبة الله ثم نظر إلى النصف الثاني بعين الشفقة فخلق الله تعالى منه أربعة أشياء العرش والكرسي واللوح والقلم ثم نظر القلم بعين الهيبة فانشق إجلالا لعظمته وهيبته ثم أمر الله القلم أن يجري على اللوح فيقول فقال يا ربي وما أكتب فقال له اكتب لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي في ملكي وأن محمدا عبدي ورسولي وخر القلم ساجدا لله باكيا مئة عام ثم رفع رأسه وقال إلهي وسيدي علمت أنك لا إله إلا أنت فمن محمد الذي قرنت اسمه باسمك قال الله تعالى يا قلم تأدب فوعزتي وجلالي لولا محمد ما خلقت عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا ولا ليلا ولا نهارا وما خلقت جميع الأشياء إلا إكراما للذي سميته محمدا صلى الله عليه وسلم فبقي القلم سكرانا من حلاوة اسم محمد ثم ألهمه الله أن يقول السلام عليك يا محمد فقال الله أيها القلم عليك السلام فلهذا صار السلام سنة والرد فريضة ثم قال أمر الله للقلم ثم أمر الله القلم فارتعد من الهيبة ألف سنة أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب فاهتدى إلى علم الله في خلقه فكتب أولاد آدم من صلبه من أطاع الله أدخله الجنة ومن عساه أدخله النار وكذلك أمة إبراهيم وكذلك أمة عيسى وكذلك أمة موسى حتى انتهى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكتب أمة محمد من أطاع الله دخل أدخله الجنة فكتب أمة محمد من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه أراد أن يكتب أدخله النار فإذا النداء من العلي يا قلم تأدب فانشق من الهيبة وانقط بيد القدرة فصار ذلك عادة في القلم لا يكتب إلا أن يكون مشقوقا مقطوعا يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون
يا بدن يا بنت كل اليوم قد قيل اي والله يسكي وصدت نروي يا تخيلا ام بئي والله يسكي ما انت اقصف فحقا قيل هي والله يسكي أقول يانا أقدن أقمل خير نري ري أعتوا بشيبه